franchement. ma yonent bi sallallahu alayhi wa kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daane ci ndeyu baayam ak ak <laughs> ndey ak baay yonent bi sallallahu alayhi parce que damaa dégg benn nit bu wax ak moom benn mu ma yonent moo gën ndey ak baay ma gën ndey ak baay <laughs> man ndey ak sama ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi eh. parce que man sama ci lislaam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci mu wax ne yàlla tànnal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xaskan saxal na ko ay baay ak ndey benn jamono mas da xam lu may yàlla tànn naka nga xam ne mooy jur yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy tane fi jamono ja di yàlla di jaamu yàlla di wéetal yàlla de dale ca Adama ba ci Abdoulaye ak Aminata de tànnal nañ koy ndey tànnal ko ay baay Ibnu Abbas na ne bindal naa yonent juróomi téeméeri baay ak juróomi téeméeri ndey kenn ku jaamu xeram xamu ci de ñoom ñëpp ay jullit lañ de laa ja dëggal na ko la taqallubaka fi saajidiina man yàlla maa lay wëndeel jëndigal julli kër ya de maanaam ñu gëm yàlla rek ñoo mas di ñoo mas di hëmbale rek yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam de mu ne askan wu askan wu rëy la mooy askan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibn